bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi waxdahu wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baxdahu bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bu nu santee borom bi subhanahu wa taala julli ci ndawam la abil qasim sayidina muhammad salallahu alayhi wa nu ngi dellu di yeesal sunu jaayante ak sunu jébbalu ci Maulana Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu wa ardaahu euh, jërë ngeen jëf yéen waa Touba TV ginnaaw bu nu ñaanalee Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu yàgg fi lool te ba lim yéene liggéeyal sëriñ Touba lépp mu defee ko ak sagom noonu la ñu wëlbatikoo nag di ñaanal jullit ñëpp ak umma islam yëpp yàlla defal leen seenu bëgg ñoom ñëpp euh, di sant nag ci. question yi nga xam ne moom ngeen laaj ci lu jëm ci sama xalaat ci ubbiteel jumaay Masaalikul Jinaan ak sama contentement ak nu ma ko gisee mooy laaj bu njëkk bi euh, loolu moom ni ma ko gisee mooy yàlla moo fay Serigne Touba ci fonkam jaamu yàlla d'une d'une manière générale Serigne Touba jaamu yàlla yëpp la def ba mu jeex waaye julli nag moom da cee am ay signes yoo xam ni mu def ko ca kenn fekku ko ca. ba ca jëkk mooy ku nekk xam ne ndar biñ ko wooloo mu jóge mbàkki bari dem ndar lam fa njëkk a def mooy julli te julli googu naafila la du farata sunna rekk la waaye julli ga yàggee na quarante cinq minutes ndax ñaari saar yu gudd la ci jàng muy suur bàqara ak ali imran la jàng ci julli ga jógeeti fa nu yóbbu ko ndakaaru muy ñetti guddi yi ndakaaru yi la mu njëkk def mooy nee na julli euh, guddik aljuma la fa ñëw maanaam alxames ci guddi ba set di aljuma la ak si Ndakaar indaale fa koor nee na biñ may woo dama jàpp ne dañ may yóbbu foo xam ne dinaa fa mën a dog sama koor gi ñu yóbbu ma ci néeg boo xam ne kenn du fa dugal koo sopp kenn du fa dugal koo bëggal jàmm kenn du fa dugal koo yéene yiw waaye néeg la boo xam ne képp koo bëgg mu loru wala mu gaañu wala mu faatu rek ci néeg boobu nga koy dugal benn ay ràbba nga ca ay oh, paakaa nga ca ay xotti biteel la nga ca lu ne nga ca waaye nag xet gu xasaw nga fa xet gi nag scientifique yi nee nañ gaz carbonique lañ defoon ci biir néeg ba ngir bëgg bu sëriñ bi yàggee ci néeg bi rek gaz boobu muy yi mën a tëj kar jaag bi wala subila waaye nag la ko sëñ bay Jaxate ne woon tënga ray ak roy jullit ne day roy yéefar ne day ray waaye tënga ray roy kenn nga bàmba ma laa ray ma su laa roy të nga ray ak roy kenn nga bàmba waaye bu fekkoon ne tëwul ray ak roy ñetti guddi ndakaaru ci biir néeg boobee fa lay des fii lay laylatul jumaati lañ ko tàbbal ci néeg bu lëndëm noonu naa ko làmbal mu làmb daj ay gobar ak ay rabb ñu tëj ko foofee dem mu des fa ak rabb nee na keroog mënta si jóot ngir ay tartar gis nga kon la ko ñor ci néeg bi lépp mooy ba moom la si jóot rek <laughs> allahu li ko julli jaaral néeg boobu ni mu mel waaye waaye euh, sëñ Moussa Ka nee na nee na keroog mënta si jóot ngir ak ay tartar sujjóot rekk na ci xel mi sëñ Tuubaa julli mooy sedd xolam li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne wa juhilat qurrat ayni fi salaa sama sedd xol dëgg dëgg dëgg yonent bi ne na ci julli la ne waaye si Ahmadu Bamba radiyallahu anhu tim sedd xolam dëgg dëgg dëgg ci julli la nekk nga xam ne tey xoolal Sénégal ni mu xate waaye foo dugg ci réew mi daañu la rat gee wala béb gee wala guy gee wala sexew gee sëñ Tuubaa fa julli woon nga xam ne dem na ba ci waxkat yi sax lañ naan bañ ko laajee nangam mu mu ne mu julli ñaar ràkk ñëw ne leen yàlla nee na nga xam ne même buy buy tontu masala sax lay julli ñaar rakk doog koo tontu même buy tontu loo koy laaj sax lay julli ñaar rakk doog laa tontu nga xam ne julli kon dafa bokk ci wàllam bokk na ci rek nekk na ci géej ga samp fa ñeenti bant bu nodd jotee mooy noddal boppam ndax wa jaala kalimatu lazina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-ulya nee na kaddug yàlla googu di kawe kaddug yéefar yi di mabbu nodd gi di jeexital ci seeni xol mënatuñ koo muñ ñu ñëw ñeenti bant yooyu ma samp ci sama buntu néeg ci quartier gi ñu ñëw tasaare ko soppi sotti fa sobe ba noppi na ma bul influence militaire yi ndax quartier gi julli xaju fi noddu xaju fi sëriñ bi nee na am na ku ñuy wax yelli say ab ndar-ndar la di ca xuloog ñoom fekk mu ñëw fa mission di ca xuloog ñoom ba jant so naa leen tooñu leen jotewut ak yéen dara yàlla da leen a sant digal ko moom muy def li ko yàlla digal yéen ngeen lànk te jotewut ak yéen dara ab jàmbur la moom jàmm yàlla rek la bëgg mënoon ngeen koo bàyyi ñeenti bantam yooyu waaye waru leen koo na buddi waru leen koo na yàq sëriñ bi neena na bi ma bi mu coow ba coow li métti ci la ma yàlla ilhaame maanaam ayab rabbana axrijna min haadihi alqaryati azalimi nee na aaya boobu la ko suñ borom ilham wàcc xal la naa min la dunka waliyan wàcc xal la naa min la dunka nashira na ma def ci ak xasida ci aaya boobu rabbana axrijna min haadihi alqaryati azalimi ahluha wajhal lana min ladunka waliyan wajhal lana min la ladunka nashira nee na aaya boobu la ma suñ borom ilham na ma def ci ak xasida te nga wax yéli mu bàyyi wax ji ndax dinaa la may ñaari jumaa yoo xam ne kenn du ko buddi kenn du julli normal nee na bi ma jëlee aaya boobu muy rabbana na di ci tàmbali ak xasida mu tàmbalee ci raditu anil mawla taala lasi rabba fuhaadi wa ahnaani wakrim bihi rabba nee na bi may bind ba toll ci luhuktub salaatan maa salaamin bi alihi wa ashaabihi wajhal bihi masjid raqba nee na ci la jibril wàcc andil ma maketu jumaay tubaa ni muy mel ba ma tëj sama bët loolu nag du dama daanu rek di ko wax waaye sëñ Modou Khari Bousso ca Gede nee na moo toog ak moom sëriñ bu mag bi radiyallahu taala an war daa nee na muy attaaya di ci def suukaru tël si ba suukar si di liddiku ba nee na xàmmeetoo ba xam ndox lay suukar wala suukar lay suukar ndax suukar su bëri nee na ma ne bàjjo ak bëgg suukar ci samam xel mu ne ma Moodu Xari ma ne ko Mbàkke mu ne ma kaas bii de bu ma la ko joxoon nga naan ko mboolem yahood yi ak nasaraan yi nga jamonoonteel la ñuy faatu ñoom ñëpp na ma ne ko Mbàkke teeg ma ko jox mu ne ko déedéet Modou Khari ku ànd ak sa warax dem ba àll ba sëf ko ba mu diis mere ko tax nga ray ko nooy def sëf ya mu ne ko xanaa yenn ko mu ne ko nasaraan sii bu ëllëgee lépp lu ngeen bëgg ñoo leen ci jàppale di leen ko indil ba ngeen defal ma ko ni ma ko bëggee te ku ray sa warax yenn sëf sëf Modou Khari mu ne ko Mbàkke mu ne ko jumaay Touba jee nga xam ne sant naa ko seex Cheikh Mahamadul Moustapha ak Cheikh Mahamadul Fadil ne leen wéy leen ca yàlla noppi na te képp koo xam ne jàpp nga ca yàlla dana la jéggal adduna ak àllaxira wax fir li man banaw bi naaha rafix wax fir li man amarahum bihi jami nga xam ne tabax bi képp ku ci mas a jàpp rek wala nga indi ci carrière wala nga sotti ci ndox rek suñ borom jéggal na la say bàkkaar yi adduna ak yooyu àllaxira loolu ko yàlla defal ci tabax bi mu ne ko nag jumaa ja nag digle naa ko nañ ci wey yàlla so noppi naka am nee na am ñu ne ko ah Mbàkke moom day danañ ca dem danañ ko def ni ko bëggee mu ne man jarut ma di ko gis ndax ni muy mel xam naa kon lii la ingénieur di defar bu defaree plan ba noppi defaral la maquette ne la li ma lay bëgg a defaral bu noppi nii lay mel Jibril moo ko njëkk a wan Cheikh Ahmadou Bamba ci géej gi loolu nag lu waxi daanu kat waaye sëriñ bee ko nettalil boppam gars yi sax léegi ñu ngi koy disee ne nga xam ne Jibril day yor plan jumaa ji fekk sëriñ bi fi mu toog ci biir géej bi muy julli ci géej waaye moom bi ko Jibril di indil plan bi booba mooy ba ñu daanelee ñeenti bantam yooyee ca làmbar na déglu naa ci Cheikh Abdou Karim Mbacké Makarimul Akhlaq yàlla na fi yàgg lool te wér moom Serigne Fallilou moo wax ne ginnaaw sëñ bi ñeenti bant la sampoon te ñetti bant yi moom dèjà teg nañ ci suñu bët mooy jumaay Touba ji ak ju njaareem ji ak ju masalik jii di bëgg ubbi yàlla nañ ci egg jàmm kon nee des na beneen ngir fonk bu sëñ Touba fonkoon julli sëñ Touba bi ñu koy yóbbu gànnaar li yàggal nit ñi ci yoon yi mooy naaru gànnaar yi mu àndaloon dañ ne nañ mujj jaarale ko ci yoon woo xam ne beeñ bu weex du fa am ndax beeñ bu weex bu mu romb rek danaan ah waa suuf si moom neex na julli di may leen ma mu wàcc julli fi ñaar rakka ñu ne nii nag buñ ko bëggee toppanteeg moom ci àll bi la ñuy fanante duñ egg nañ ko jaarale ci yoon woo xam ne beeñ amu fi moo tax sëñ Moussa Kane du wopp ba tax mu wàññi jaamu yàlla am du tiis ba mu tax mu war faratay boromam du déggug nodd mbaab kàbbar te téewul lu taw taw ak lu liw liw ngir boromam du tab ji ba tiim du wuute musul maa moomu du gàppru bis du wéerul jullil boromam du yeexal wenn waxtu te mas fay faat la koy wax raw na montar mooy borom li koy wax raw na montar mooy boromam nag sëñ Modou Rachid Ndiaye sama baay bu baax bi moom sëñ ma bànji nee na sëñ ma bànji leen nettali na sëriñ bi de naari gànnaar yi dañoo defar seen xamtukaayi waxtu ba waxtu wa jotee rek sëñ bi fel kaadar bi jëm te jàkka naar benn bi ne sëñ bi yow lan ngay xamee waxtu nee na sëriñ bi nekko ko yow looy xamee waxtu mu ne ko ñun suñ xamtukaayu jamono mooy nangam ji bu dalee ci takk ndeer bii mooy waxtu sàngam yi jot na sëriñ bi ne leen ay yéen foofu ngeen ci tolloo naar bi ne ko ne yow sëñ bi yow looy xamee waxtu yow mu ne ko man dañ ma naan jugal julli man dañ ma daan jugal julli moo tax sëñ Moussa Ka ne la koy wax raw na montor te mooy boromam sëñ Tuubaa du faat waxtu ndax bu waxtu wi jotee boromam moo ko koy annoncé na ko ko waxtu wi jot na tey wa in min say in ila yusabbihu bi am amul lenn lu yàlla bind te nekkul di sàbbal yàlla moom bi mu demee ba xam ne gisul kenn ku mu waxal wala ci yàlla sax géej gam nekkoon da ko doon woo ci yàlla ngir ne ko bul bokkaale yàlla wéetalal yàlla te bul bul bokk ci ñi naan yàlla ñett la aya bahru wahid laa tusallis fa rabbuna taala ani taslisi akrim bihi rabba kon kooku julli moo doon léppam jële nañ ci abdullah ibnu ah, cheikh mouhamad ibnu hasan mu dëkk ca Mauritanie di ab surafaawu di di ko tedd bokk ci surafaaw yi waaye li maanaam lim identifié sëñ Tuubaa bi mu koy tàgg ci julli la ko identifié maanaam sëñ dafa wax ne ala ya ibadallahi quumu li tashadu wala taktumu ma wala taktumu ma taalamuuna fa tahtadu zahaltukumu billahi man saraaytumu alal ardi misla sayqi yarkahu yasjud iza qultumu ma nahrifu dahra mislahu fa xawlukumu haqqul wa ila tafannadu mu ne alaa yaa ibadallah quumu li tasxalu yéen jaami yàlla yi maa leen di woo ngeen ñëw seede ma te bu leen nëbbu li ngeen xam nag wala taktumu maa ta'lamuuna fa tahtadu li ngeen xam bu leen ko nëbbu na ngeen ko wax te yàlla rek tax zaxaltukumu billaahi man sara ay tumo maa ngi leen di laaj yàlla ndax mas ngeen a gis man sara ay tumo alal ardi ci kaw suuf sii mis sa sayqi ku mel ne si Ahmadou Bamba yarkahu yasjudu ci mën a sujjóot ak mën a rukkoo ci mën a sujjóot ak mën a rukkoo ndax mas ko gis isa xultum maa naxarifu dahra misloo fa xawlukum mu àqun bu ngeen ma waxee ne ma jamono mosuñoo gis ku mel sëñ Tuubaa ci mën a sujjóot ak mën a rukkoo de ma leen wax ngeen dëgg waaye bu ma waxee ne gis nañ ku mel sëñ Tuubaa ci mën a sujjóot ak mën a rukkoo nee na ma ne la way na doon moom waxu dëgg ak ku mën a doon ma la waxu dëgg sëñ Tuubaa moom ni li sëñ Moussa Abdou Khadir nettali na ko ci màggalu sëñ Abdou Khadir gi nu génn bi ko tubaab bi wooloo ca gànnaar te fekk mu yor tànk bu métti boo xam ne saa bu julli gi jeexee rek day tëddaat du mën a jug te daa yoru aw yet teg ci ndax tànk bu métti tànk bu métti lool lool lool lool waaye julli rek lay jug xoolal li ko julli jaaral julli rek lay jug waaye bi ko tubaab bi ne mënta ñàkk bañ a ñëw sëñ Maxtaar Penda Jeng ñoom waxtaan ak tubaab bi mu ne leen mënta ñàkk bañ a ñëw ngir di ko saay-saaye rek bu tubaab bi demee ñu jël yat bi sànni ko nes tuut ñu gis sëñ bi taxaw mel ne dara dalu sëñ Maxtaar Penda Jeng ñoom ne ko ana yet wa mu ne ko yet wa de wàcc naa ko yàlla dafa simmi sama mbubbum sama mbubbum maanaam fitna ba képp ku ma ko nara solalati rek yàlla solal la ko nes tuut ñu tàggee tubaab bi na tubaab bi faatu tubaab bi doon woo sëñ bi ngir fitnaal ko moom la yàlla teg nattu ba ndax nattum sëñ Tuubaa kenn attanu ko kuñ ko teg nga faatu maqaamam sëriñ tubaa amul xut bu buñ ko yet wa yaxluqu maa laa taxlamuun ay Serigne Touba bu nattu jugaa ba jëm si ci njabootam mu daar daaraloo ko ngir ànd ak boromam te lu mbir rëy rëy rëy rëy rëy da koy faf dolli ak gëm du yoqi du daw di mbër mu farak boromam li ko julli jaraloon jarul jarulu ko kenn julli rek ko jaraloon wàcc ci géej gi sëñ Mbàkke Buso daf ko laaj ne ndax bi ngay julli ci géej gi dafa laa leer na boo demee yàlla te la géej gi mu ne ko loola fa yàlla xamalul Mbàkke xamalu ma ko fa waaye dee dëgg dafa maa gënal dund ci fen ma dem fekk dëgg jeexul mu dund ndax yàlla muy dëgg ma fekk dëgg ji yoxul mu mucc moo tax Senghor ne woon képp ku fi ma a ñëwal lislaam bi sa bakkan bi sa bakkan bëggee wadd lislaam bëgg a wadd bàyyi nga sa bakkan bàyyi nga lislaam muy wadd di jéem a récupérer sa bakkan yàlla xañ la ñaar yëpp xaj la sa bakkan xaj la lislaam mbase bàyyi sëñ bamba moom doo nga fi yor lislaam di ko kondil ba bakkanam bëgg a wadd lislaam bëgg a wadd mu bàyyi bakkanam muy wadd di aw lislaam yàlla awal ko bakkanam awal ko lislaam loolu ku loolu ku ak ab jullit moo ko seede Cheikh Ahmadou Bamba ci ci ci mën a julli ak mën a jaamu yàlla su ko defee nag masalikul jinaan moom contentement bi ñu ci am mooy contentement bi ñu am ci ma euh, jumaa ji wax dëgg yàlla sama xol sedd na ci rawatina ñim jaar ci seeni loxo tàmbalee ko ci sëriñ Saalix Mbàkke radiyallaahu taala anhu mi amoon yéene ji jaar ci sëriñ Alhaaji Baar radiyallaahu anhu jaar ci sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke jàmbaar jooju nga xam ne mar marqué na ay empreinteem ci yoonu murit yoonu murit dootu ko fàtte ko fi indi sooroor yu gudd yii def fi masaalik dimbale indona ñiy indone un milliard kooku la adduna dootul fàtte Cheikh Sidi Muxtaar ak sëriñ Alhaaji Baara waaye nag suñ jàmbaar ju mag jii borom 37 milliards yi doogu ñëw Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te wér yaa rabbana tawil baqa al muntaxa fiina muhafan wakfihi ma yutuqa najlil basiri a nadd bi sayxi hasrihi akrim bihi min sil maqamina bi kooku yàlla na fi yàgg te wér kenn dabu ko ci toroxlu kenn dabu ko ci wàcc boppam kenn dabu ko ci mën muñ kenn dabu ko ci tabe kenn dabu ko ci bëgg Cheikh Ahmadou Bamba al iradatu qawiya muy décision ferme ku dem ma dem ku demut ma dem nit ñëpp a ngi ko jàgg ci Cheikh Mamadou Muntaxa yàlla na yàgg loolu te wér moo tax université bii muy defar murit yëpp ci war a jàpp ndax nag mooy bëggug sëñ Tuubaa te moo desoon ci santaane sëñ Tuubaa kon ñëpp ci war a jàpp yàlla na fi yàgg loolu te wér ànd koog moom ñu liggéey ko ba mu sotti coleet mu inigré ko ñu fekki ko ñun ñëpp te dara maanaam yàlla tëbb ko kattan tëbb ko doole ba ni ko bëggee mu defe kon te ñun ñëpp ñu topp ci ginnaawam barki Cheikh Modou Bamba waaye nag Cheikh Bassirou Cheikh Abdoul Khadir ku ñàkk moroom a ngi noonu moom mbakki yu fay alxaaju mbakki yu fay murit saadix la mbakki yu li ma gën a neex ci moom li ma gën a neex ci mbakki yu mooy murit la murit day ñeme tuuma sëñ Tuubaa bi ñu ko ne yaa toj bitig bi du fa nekku fa naan tojuma bitig bi dana damaa roy borom bitig bi doo ko toj bitig bi ngir xeex bi mën a tàmbali rek as gor dëgg dëgg dëgg day ñeme tuuma du weddi du miim yàgg rek la yónni yàgg koy layal mbakki yu miimut weddiwul daa bàyyi derem bi ñu di ko jàmba bu doon mbuusu pepp mënut a mënut a def pepp lu ne dégg na ko ci waaye ñëpp nangu fi ni xam nga yàgg gi amu ci jariñ baax rek ci am njariñ te mu xam ni mu demee nag dox teg ci am xam-xam teg am expérience teg ci xam couleur xam ne adduna yi wëlbatikook ni muy doxee xam fi jamono toll fu ne mu dem fa di borom xam-xam du jaay jumaa ju mel nii nit yor na xaalis te du am ju mel nii nit yor na xaalis bu dul jeex te du am jumaa ju mel nii gis nga liñ def ci jumaa ji mënees na ko def ci lu ëpp jumaa ji te jumaa ji du mel nii mu mel waaye kiñ teg jumaa ji ci loxoom moom mooy liggéeyal Serigne Touba ba noppi yéene Serigne Touba yéene ko am xelam yéene ko dooleem yéene ko alalam yéene ko ab deram yónni yàgg rek weddiwul miimul yàgg ko layal ba ñëpp ne ko baraawo waaye nag noonu la noonu la Sénégal ba dañ la apprécier dañ laa baraawoo ba noppi gisagoo kenn ci àdduna kuñ baraawowul ba noppi doog laa tàcc waaye moom mu bàyyi deram bi rek ko addiyee Serigne Touba du weddi du mim dis gor su ñeme tuuma mbàkk yi ci loolu laa ko nawee gis nga as gor du weddi du mim booy weddi wala ngay mim rek dafa mel ne li ñuy wax da nga ci laal waaye da ngay yónni yàgg rek yàgg lay layal ginnaaw yow ab xam ne yàlla day wàcc ay mojisaat ci yow di di di di di def contrainte ci li nga def ne ñu ne lii diw defu ko wala waxu ko du ab du ab waaye nag mbàkk yu nag wóoru ma ba xam wàllu yu la de mën naa ko koo jiiñ de mbàkk yu fay ah man ñemewu ma ndax li tax ñemewu ma ko mooy euh, ku ñeme kurus la te loolu xam naa ci dara ku bëgg xasida yi la ku bëgg sëñ Tuubaa la ku mën a joxe alal lam la ci yoonu sëñ Tuubaa moo tax ku mat a moytul te du tooñ nag te yooyu bu dayee ci nit ku ko tooñ rek yàllaa koy fay te sëñ Tuubaa jaral na ku lu ne moom waaye nag am na ndam am na ndam ñëpp ko ne jëf kenn mériwu ko jumaa ji yàgg na coow lu ne am na ci waaye bi mu eggee ñun ñëpp nee nañ gongo te loolu rek ci am solo tukki moom lu oto bi yeex yeex yegg ak jàmm rek waaye daaw yi xëy accident ci yoon yi amul benn jàng waaye lu oto bi yeex yeex na àgg ndakaaru rek moom lañ bëgg te moom yegg na liñ bëggoon mooy jumaa ji mel noo xam ne jullit bu ko gis te jumaa ji du jumaa yi murit yi jullit yëpp ko bokk umma islamique bépp a bokk jumaa ji tarixa yi ne Sénégal ñun ñëpp ñoo bokk jumaa ji ndax benn lañu këri diine yi ci Sénégal benn kër la lu baax la ñu xam moom lañ daan séqante moom lañ daan doxalante seenu njaboot tamit ci loolu lañ nekk ba fi moo tax jumaa ji bu leen ko du jumaay murit képp jumaay jullit ñëpp la jumaa yàlla moo ko moom jullit ñëpp ko bokk même ñi nga xam ne bokku ñoom ñoom mën xëj sax ci jumaa ji lañ bokk ndax sëñ Tuubaa dafa yaatal sëñ Tuubaa ko yaatal la du boddee du jànnee du ñàq du xotti saatir day woo day woo ku ko bañ di neexal di neexal ku ko foñ ku dul kuy mooy boroomam te yooyu jafe la safoo ku la soof safoo ku la soof di woo ku la foñ di neexal ku la bañ yooyu jikko yi sëñ Tuubaa la moo tax sëñ Tuubaa moom kenn bënul ci moom li mu la wax naan ya sëñ Fall ne woon yàlla daf ñu fi indi ngeen ñu xajoo seen i bang-bang ak xaj seen i bon bon moo fi indi woon sëñ Tuubaa xajoo bangi-bangi taalibe yi ak moo tax boo diwul kenn xeebul kenn dàqul kenn ñëpp ci boppam ba ko borom dara laajee ne ko sa yoon wi fu mu yem mu ne kuy wax euh, kuy wax laa ilaaha illallaah rek ci jamono jii ñu toll rek maanaam ci ci maag yow a bokk lu ñu wut dégg nga wax moom wala tuaadoo man raaytum faa ko yuxriju laa ilaha illa ku ngeen dégg gémmiñam laa ilaha illa di ci génn ba leen ko noonu loolu mooy lu dëgg ci moom lu wér ci moom noonuwul benn jullit merewul benn jullit bañut benn jullit yallaahu yaa xafiisu yaa salamri ba ba ba ba ba bayit ya jeex boo ko jàngee da nga xam ne Serigne Touba jullit ñëpp la ñaanal kon nag yàlla na fi Cheikh Mouhamadul Mountakha yàgg te wér sëñ Mahamadul Bachir moom Cheikh Abdou Khadir yàlla na fi yàgg te waa waaw jumaa nag buñ koy tabax moom julli ji dong nga tax ñu tabax ko fa ndax néegub yàlla lañ wax te nit ñi sax fi ne def nañ ci seeni salon lu ëpp ay cent millions ci saal rek gis naa ñu ci def lu ëpp cent millions te saal yooyu tey fi ne li li li àdduna yaatu yaatu waxin la nag bu yàlla wàccoon ci àdduna waxin la ndax yàlla xajut fenn waaye bu wàccoon ci àdduna tey ca jumaa jooja lay fanaan ndax moom lañ mooy néegam bu yàlla ñëwoon ci àdduna kon ca jumaa ja lay fanaan ndax mooy néegub yàlla ginnaaw mooy néegub yàlla nag lañ fay def muy julli moo koy dundal mooy bu buñ noddee ñu wuy ji allahu akbar ak laay ilaha illallah sëñ Tuubaa da ko firi woon allahu akbar nee na saa boo ko déggee loo nekk lu ko gën a màgg ñëw na laa ilaha illallah nag feneen foofu jëm futi ca julli ga al ko kon murit yëpp ak jullit yëpp war nañ di dundal jàkka ji ti dem di julli ji nag te loolu sax siñ Sidi Muxtaar dégloon nañu ko avant mu fi jóge jullit ñi nañuy noote jàkka yi di julli ji waxtu juróom xanaa xamu ne julli yow kenn julli ci mbooloo ëppee na ko ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar te yonent bi sallallahu alayhi wa daf ne awalu maa yuhaasabu bihi al abdu yowma alqiyaama assalaa la ñu njëkk xool ci jàmm bi ëllëg yowma alqiyaama mooy julli su baaxee rek lépp baax su bonee nag ñu ñàkk yaakaar ci li ci des lépp moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala daan def nii day leen julli di ko jubal su ngeen dee julli di ko jubal def nii loxo ba bu ëllëgee lu ngeen dëngal julli jubal ko daal def nii loxo ba ne day leen moytu di julli di ko dëngal bu ngeen dee julli di ko dëngal bu ëllëgee lu ngeen jubal julli dëngal ko kon julli moom la ñuy njëkk a xool ci jaam bi ëllëg ci ay jëfam yowmal xiyaam yonent bi salaa salaam bi muy génn àdduna de alaykum bi salaati wa maa malakat aymaanukum maa ngi leen di dénk julli ak ngeen yërëm ñi ngeen yilif ngeen yërëm ñi ngeen yilif maa ngi leen di dénk julli ak ngeen yërëm ñi ngeen yilif kon julli mooy ñaareelu ponk ci lislaam sahaadut an laa ilaaha illallah wax qaami salaa itaa yi sàkka wa sawma ramadaan wa ajjil bayt kon juróomi kenn yooyu ci la tabax lislaam waaye julli mooy deuxième bi yonent bi nag ne mooy kenul diine asalaatu imaadu diin julli mooy kenul diine ku ko màbbu màbbu nga diine waaye ku ko taxawal taxawal nga diine kon li ñuy dunde la jàkk ji mooy julli ji rek bu ñu wootee nga wuy ji rek saa bu ñu noddee rek nga jàpp dem julli ji loolu mooy dundal jàkk ji waaw li may tëje nag mooy xanaa dolli dolli di wax murit yépp nag nañ fa joxante rendez-vous na fees dell ñu médiatiser ko adduna bépp xam ne lislaam am na ndam adduna bépp xam ne ki ñu doon yóbbu ci géej gi ngir di ko tere julli moom lañ tabaxal jumaa ju mel nii ki doon si jot keroog ci ñetti guddi yi ndakaaru yi manta si jot ngir tar tar moom lañ defar jumaa jëna yang tey ñu di ko julli ñëpp di si jot te kenn xatalu la ak lampam bu rafet bee nga xam ne man dama koy xool daanaka ba ci laa jëlee sama mbagg mi di métti ndax xool lamp bi lamp bi moom dama ko gisul ndax man damaa dem fu ne ci adduna bi te gisuma lamp bi fenn wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu